ba Touba Belel loolu leer na nañ kon nag jooju jëf ju set la te lu si jëf sëñ Touba lañ ko jëfal loolu na leen wóor di leen di sant yéen ñu ñu taxawu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen ni seenu pay de moom awu ko seenu cantik lott naa ci waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm te dimbali leen di sant yéen ñi ñu taxaw lii nee na mi ngi ñuy sant bu baax ñun ñu taxaw lii ci seen sembu yi ci sunu sembu mi dañ ko def ngir liggéeyale ko sëriñ bi dañ ko def ngir liggéeyale ko cheikh abdoulaye ilah ak sunu sang ba te jiitu am na beneen liggéey bu ko jiitu woon nee na am na beneen liggéey bu ko jiitu woon ah, ngeen taxaw ca temm ñu taxaw sa temm ba yàlla matul fa te yàlla àggale liggéey boobee. ngeen sémbaat bii. ñu sémbaat bii. yal na ko suñu borom nangu. yàlla na suñu boroom nangu liggéey bi. ba ba Touba bi loolu leer na man nañ kon nag jooju jëf ju set la te lu ci jëf sëñ Touba lañ ko jëfal loolu na wóor.